wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu uh, uh, gannaaw bi ñu santeere julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi uh, toog tey ci kër sunu kilifa sunu way wayjur di sëriñ Xamsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoul ci màggalu sëriñ Abdoul Ahad gi nga xam ne ñu ngi koy màggal tey fii ci Touba ñu ñëw fekk si ko fii ci këram gi ci pàkkam bi ngir ziyaare si ko bokk ak moom bis bi waaye ndigal bu bu jotee rek Euh, am murit da koy daal def sëñ bi jox ñu kàdd yoo xam ne dañ koy yëkkati pour euh, santal ko mbooloo mi ak mbooleem euh, mbokk yi xam daje nañ fi bala ñëw ci loolu nag sëñ am sa mii ngi nga xam ne fokk na fekk nañ ko ci këram dana baax ñu sànni ci kàddu yu gàtt rek ci moom ndax moom mii toog day jàmbaar joo xam ne la waaye juróom la Cheikh Abdoulaye Mbacké doon liggéey la Sëriñ Touba ci xilaafaam ba dëkk bii di tubaa mu raxas ko laabal ko ci lépp loo xam ne neexul yàlla suñu borom subhanahu wa neexul yontu sa neexul sëriñ Tuubaa njàmbarte googu ak fit woowu ak bëgg sëriñ Tuubaa googu bëgg sëriñ Tuubaa googu moom la sëñ am sa mii toog dond ci moom sëñ Ablaat kenn ku ne euh, kenn du fàtte boog discours bu màgg boobu mu waxoon ci liggéey dëkk bi dem ba ne sama bakkan bi laa ci teg loolu kon la yàlla suñu borom subhanahu wa taala doon wax ne euh, bala ngeen am li nekk fi man faaw da ngeen may jaay seen bakkan ak seen alal ba yàlla wax ne inna allaha shara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna Sëñ Abdou Lahad Mbacké loolu la tegoon ci kanamam moo tax mu ne sama bakkan bi laa ci teg yàlla dimbali ko ba dëkk bi di Touba tey ñu toll ci vingt-et-unième siècle ci mondialisation dëkk Touba nekk dëkk boo xam ne ci àdduna bi benn dëkk la boo xam ne bu mag la waaye kenn du fi tux kenn du fi naan ci li ñu gis kenn du fi def làmb kenn du fi def dara te mooy deuxième ville di Sénégal lool nag képp ku di ab murit rawat na nga di ab ab sag la war a nekk ci yow foo dem ci àdduna bi ci dëkk yi liberté dugal nañu dugal nañu fa leneen waaye Touba gi tey de alhamdulilahi rabbil alamin kenn du fi tux kenn du fi naan te dëkk bu mag a mag la boo xam ne lépp loo xam ne yàlla subhaanahu wa taala moom la bëgg moom lañ fi def njàmbarte googu nag suñ am sa mii moom la doon ci moom ndax kenn wérantuwul ne kuréel gi di Xudaamul eh, maanaam xaddim moo ko taxawal ngir tamit xam ne war naa bay wàllam ci biir tool bi kenn ku ne xam ne kuréel gi day sàmm li fi sëñ Abdoulaye Mbacké te loolu mooy dëkk setal dëkk bi ci jikko yoo xam ne naka sudu noonu la waaye sàmm yoonu Sëriñ Tuubaa yi sëñ am sa taxaw ci lu mel noonu ñëpp gis nañ lépp loo xam ne nar nañ ko taqal ci yoon yi wala ci lislaam sax laay wax da ngeen dégg mu bàyyi léppam joxe taam joxe léppam taxaw jël responsabilité ko waaye juróom sell wu daan jële ba àdduna bépp gis ko ba loolu yàlla suma subhaanahu defal ko ci tawfeex ñun ñi tamit ñu nekk ak njabootam mu jël ñu taf ñu ci wetam saa su ne damay woo téléphone di ma encouragé ba kuréel yii nga xam ne sax moo ko jiite dañ koo def fédération bu mag boo xam ne dawaa it yëpp gi ci biir mu woo ma ne ma dama bëgg nga nekk porte parole bi lépp lu ñu war a yëkkati nga di ko yëkkati. di ma encouragé ngir ñun tam li ñuy moo tax ma koy wax ne ko waaye juru woo xam ne bu ñu amoon ñu mel ne yow ñu bari ci dëkk bi lu bare bari dana sot kon alhamdulilahi rabbil ñu ngi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla guddal fan wéeral cëram kon ñu fekk ko fi ci bisam bi nag bis bu tedd bii fekk fi ay mbokkam léegi li suñu Cheikh Bara Laat jóge eh, naka noonu eh, mbokk yaa ngi toog waa ko Serigne Abdou Khadir yaa ngi toog waa ko yaa ngi toog ñu fekk fi mbokki taalib ñëpp ngi fi euh, kenn ku a xam ne liggéey bi euh, li tax sëñ am sa taxawal kuréel gi ñu ànd ci moom di ci liggéey mooy sàmm ndonal sëriñ Tuubaa waaye sàmm ndonal sëriñ Tuubaa dafa am lu ci njëkk jiitu muy sëriñ bi jëmmi boppam mooy maqaam bi ko yàlla subhaanahu wa ta'aala jox waaye bokk na ci tamit xasidaam yi bokk na ci jumaam ji bokk na ci njabootam bokk na ci dëkkam bi loolu nag li nga xam ne sëñ bi mu ngi koy lancé di ko wax ci turu kuréel yu yëpp nga xam ne Mor Baye tudd nga ko léegi sëñ bi mi ngi woowaat premièrement murid yi ñoom lay njëkk woowaat ñu gën a delluwaat ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa njàngaleem Sëriñ Tuubaa mooy lan fexe ba képp lépp loo xam ne Sëriñ Tuubaa moom la diglee ci ay teggin yoo xam ne ab murit war na ko amewoo suñ suñ suñ am sa mi ngi lancé pour ñu delluwaat ci lu ma ndax jamono bi ñu toll jamonoy xasante jamonoy ŋàññante la jamono la boo xam ne kenn ku ne lu la neex mën koo yëkkati wax kon moom li muy njëkk lancé ci message boo xam ne mi ngi koy jëmale ci taalibe yi comme moom mooy sàmm te bu dara amee ci moom la ñu ñëw mi ngi woowaat mbokki taalibe yi yëpp ñu gën a tënku ci teggin yooyu nga xam ne suñu tubaab jàngal ko nax jox xaddal xaaj ba ca toppaat tamit ñi nga xam ne ñi ngi wax yu ñaaw jël kàddu yu ñaaw di ko jëmale si sëriñ Tuubaa ñooñu dañoo réer te ku réer nag ah la nga koy mën a dimbalee mën koo gindee mooy fexe ba wan ko ak nooy fexe ba wan ko leneen bu ko defee ñooñu nag seen borom subhaanahu wa taala la ñuy la ñuy liwaatool ndax biraasu man baarisu ñu baarisu mun tax taxama baarisu sama loolu sëriñ Tuubaa waxoon képp ku ñëw di liwaatoog man ngir ni ma yàlla def dalaa neexut suñ tubaa nee na defoog man mais yàlla suma subhaana ngay liwaatool moo tax ñi ngi woo ñi koy def xam nañ ne du kenn ku leen ko digal du seen i sëriñ ñoo leen ko digal du fañ bokk ñoo leen ko digal waaye xëy na ah, seytaane moo leen man bu defee ñuy def yu mel na waaye nañ xam ne nitu yàlla ku mel na sëriñ tubaa képp kuy xas ak ŋàññi yàlla suma subhaana taala wax ndax yent salaan sama wax ci xadis ne man yan faqad aadantu bi ne yaa ngi noonante kenn ci sama awlaay man yàlla maa la déclaré guerre ku yàlla déclaré man nga gis bëccëg ndar kam moo fan yi gis ngeen amna ben xalé buñ jàppoon fan yi bo xamne ma nga doon wax wax ju ñaaw kooku yàlla suma wa taala moo wër ndax ma naa bañ a feeñ kooku nag lañ koy diggal na tuub tuub gu sel jéggul yàlla suma wa taala ak ñi mel na mom nga xamne ñi ngi laqatu def yu mel non nañ xamne ne niti yàlla yii ak fu mu mëna a yalla képp ku leen di gaaral wala nga def ci ñom leen yàlla suma wa ta'ala mëna la wër bëccëg ndar kam kon dal lool la ñuy woote message bobu di ñaan yàlla su borom subhanahu wa taala ñu gën a tënku ci njàngale mi nga xam ne moom la fi Sëriñ bàyyi te mooy ay teggin ak yar yàlla nañu ko yàlla defal ci barke Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa wa barakatuh diine ji ak lislaam ji dëgg nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi